asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fattaahu wahabu yaa rasaqu yaa may kiif te wahab liya warzuqni min ana dayfi asila ajilan bi si mahamadin hatta aslama idina kana si doyen tuuba wax mi ni wax ni atawura hotu disa maskana kasama wala di wahabu yaa masakin asma ajibu sabbi isman hasanati muhammadin wa tuhdi faaxi bana ok asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp rek waa daara yi ñëpp ñëpp xam naa am na xasida ku gàtt goo xam ne suñu tuwaat ko bindoon mu muy tontul ab bataaxel boo xam ne ku ñu wax Cheikh Abdoul Khadir moo ko ko laajoon xam nga moom xam nag damaa jot boo xam ne ne ci naari gànnaar yi laa jorte waaye nag ci wërëguma ma nga tudd Taysirul Xaafir la bi jawaabi Abdul Xaadir tontu lu tontu lu lu xóot la moom lu mat a déglu rawatina na jamono jii sëñ bi dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi almusawwiri alalimi alqadiri almuhaymini alxalimi man amara aljaahila bi suaali an kulli ma an kulli amrin kaana saa ishkaal yi ثم الصلاة والسلام الله ثم الصلاة وسلام الله على الشفيع الخاشع الأواهي محمد والآل والأصحاب من تبع السائل بالجواب dafa wax itam yonent bi Aysa julli sant sant Yàlla tagg ko dafa tagg ko ci ay turam yu mag yi julli ci ab yonentam daal wax ne maa ngi tagg Yàlla di ko sant moom mi nga xam ne moo digal courrier mu laaj ci lépp loo xam ne lëtt na ko di gis ne bi ma salaam mu ragal yàlla ma jaam ko kaddu tudd yàlla ba di ko ñaanal xéwal feeg ku koy laaj mi ngi jëriñu ci am ci te sant la waaye wax nga ne wa baadu faalam anna yaa muridu bi anna gayra allahi laa yufiidu ne ko kon nag day ginnaaw jéebinu leetar bi day da nga xam yow murid bi ne lu dul yàlla du jëriñ fa laysa yaati min siwaahu abada durun wala nafun huna qul wa gada ne mu ne ko da nga xam ne du dikkee ci ku dul yàlla faw lor wala njëriñ moo xam fii ci adduna la neel it ëllëg yàllax la mu ne ko lim laa wa kullu ma siwaahu falahu sunoon ala itlaaqi fabri fadlahu mu ne lu war loolu mu ne ngir lu dul moom moo ko moom lu dul moom moo ko liggéey moo ko bind ci lu boy kon nag naga sàkku nga yëlam mu ne lim laa wa kullu ma siwaahu falahu sunuun ala itlaaqi fabri fadlahu wala takun ma ashta zahtimaadi tamaan aw xawfan ala ibaadi mu ne ko kon de maa ngi lay dénk ginnaaw xam nga loolu fekk yaa ngi dund bool sukkandiku ci moo xam da nga xemmeem li nga yor wala nga ragal ko ñaana bul bul xemmeem wala nga ragal dara lu ab jaam yor li li anna man ala al ibaadi yaatamid mu ne ngir képp ku sukkandiku ci jaam ñi fa laysa fi xaqiqatin bi moo tamit kooke day ci lu wér ci lu dëggu dañuy wax la vérité absolue kooke day moom sukkandiku ci dara ku sukkandiku ci ab jaam sukkandiku woo ndax day res moom xer la bu xer bu maxee la buy res day mab moom id kullu cheyin gayri xaaliqi ibaad fa haalikun fakun alayhi saatimaat waaye xamal ne kat ku dul yàlla mi bind jaam ñi kooka day dee day far day far moom kon kon kon yow boo ci sukkandikoo xera bu maxee ngoog day mab bu ànd ak yow kon nag na nga sukkandiku ci yàlla mi nga xam ne moom du dee fa in taxaf aw tarju gayra allahi fa anta suu safahatin walaahi yow day yow day murid bi maa ngi dénk soo ragalee mbaa ngay nga yaakaar ku dul yàlla yow de boroom ak dese nga te ab fokkan nga wa taxisil ilaaha jalla saaxiba su matrukil wara jami'an janiba jàppale yàlla muy sab àndandoo yàlla màgg ma jàpp ko ab àndandoo te na nag na nga bàyyi bindeef yëpp bilaay mil jins ñëpp alwara ñëpp jami'an mu feddali ko boole ja ñoom ñëpp jaani ban wacci leen ci ak wàll te jëm ci suñu borom su matrukil wara jami'an janiba mu ne fa allahu laa yagibu laa yanaamu wala yabiru bal hul allaamu yàlla mi may wax kat yàlla mii moom lépp moom kat laa yaxiibu du faddu mukk du nelaw kat laa yanaamu laa taxudu sin tunwaanamu du nelaw de wala yebiidu du dee mukk du alku bal huwa allaamu mooy mooy mooy ko xam daj moo moo dañ ci kumpa moo dañ kumpa amul kumpa moom boogee boogee boogee boogee dañ sax borom walaysa yajusu wala yuxlif an mawaidihi waada lil xalqi zaman mu ne moom kat du du rottu ci dara lu bëgg def ma mën na ko te du te du faussé rendez-vous ba ah te te dig na nag bindeefam yi nag jamono jamono sangam nangam dana am wala isa yaxfulu wala yansa ahad min al xalaiq taala fara mu ne moom kat du sàggane sàggan mooy du fàtte dara du fàtte kenn du sàggan du fàtte kenn ci bindeef yi kenn ku nekk ma xam na xam na la ma ngi lay sopp di la saytu moom day kawe na te mu wéet na ci nammel jaag si xalqihi jaag si xalqihi pare du jaag si ci xalqihi farum ridwaana wala simi taqwa ala ma qaala mu ne kon kat ci safaanoog bindee fam yi kon na nga sàkku ngërëmam sàkkul nag ko kon ci ngërëmam te na nga taqoo moytu ko ca lañ wax wala si mi taqwa ala ma qaala isi tuqaa miftaahu kulli xayri ndax wattu yàlla taqwa nag moom mooy wattu yàlla wattu tereem yi ndax dafa ma ngi dañoo wax ne yàlla dafa lënkale tereem yi ak lorom yi moo tax kon yow wattul tereem yi yàlla kenn du ko ragal yàlla soppe la ndax dama waxoon nee na ci ma yataadda xurudallahi faqad zalama nafsa koo xam ne dangaa dangaa dangaa dangaa jégg ñag bi te safak ay ay jànkalaar ak ay nañ banteg lu ne ko kon nag moytul jégg ñag bi isi tuqaa miftaahu kulli xayri sëñ bi ne ne na nga xam ne it mooy moytu tere yi mooy buntu mooy caabi bépp yiw alam wa mixlaaxuxun li kulli dayri da nga xamit ne mooy mooy caabi ji tëj bépp bulo la mboxoon suñ mbakki buso mu baax ma ne ko mbakki buso tomb tomb ci digg bi ne ko mbakki buso yaa ngi nii tomb ca ca ndaj yorom ne ko mbakki buso ndigal yaa ngi nii tomb ca càmmoñam ne ko mbakki buso ca yaa ngi nii tomb ca kanamam ne ko mbakki buso li nga bëgg mi ngi nii soo dewee jëm ca léegi naa ndigal yaa ngi nii soo dawee jëm ca li nga bëgg daw daw jëm ci yow ne ko tomb ci ginnaawam ne ko mbakki bu soo te te tere yaa ngi nii soo dawee jëm ca la la nga bañ daw jëm ci yow kon mbir ko ko leer na kon tomb yi leer na faja fajaxaluhu nee na def ko fajaxaluhu zaadaka huna wahanaa tulaaqi ruslan wa tukaffal wahanaa mu ne mu ne ay waaye defal moytu tere yi muy sa muy sa yóbbal tey ak ëllëg kon de da nga da nga dajeeg ak jub te de def def nara fekk ak ak doy di fala turim ilman wala cheyan bila taqwa taqwa ilahi naasi jalla wa ala bul sàkku xam-xam wala dara rek lu ma di doon alal lu ma di doon lu may moytu moytu tere yàlla yi moom moom mi xam ne màgg na te kawe mu ne fa kullu ma aataakahu bilaahu fa daaka lil istidraaji istraaw da nga xam ne lépp lu la yàlla jox ci lu dul wattu tere yi da nga xam ne loola muy këpputal doxa ko pepp rek la saa boo gisee dara xam ne leen doxa ko si ko pepp la yéen ba ñëwagul fa firra minhu innahu balaahu nee na nee na loolee loolee ñëw ñuru xéewal nee na daw daw ko de da nga xam ne baraab yàlla la nattoom yàlla de dalay nattu rek dalay exterminé rek seet ba xam wala wanu ko batun catastrophe la alkane dëgg la turu bii ka la na maw catastrophe boobu bu la nga arak dong la waaye du nee ne développement la lu yokku la waxlam bi an alfatha wal anwaara wa zuhda wal irfaana wal asaara mu ne xamal ne ubbiku jëllug pay yàlla ya jëlloo xam-xamam ya am connexion bu wér ak leeram ya ak dëddu ak xam yàlla ak secret ya tunaalu bi taqwa wa iksaaril wara laa bi tasawufin wa iksaari tama ñu ngi koy amee ci wattu wattu tere yi ñu ngi koy nee na ñu ngi koy amee ci baril ak sàmm nee na kenn du ko amee ci yeexe ndigal yi ak barig xemme mbindéef yi fa duma ala taqlili aklin wa manaam wa qillatil xirsi wa qillatil kalaam naka saxoo néewal lekk ak néewal naan néewal lekk néewal nelaw néewal xemmeem yitte yu adduna yi néewal wax wax nag na jo suñ sëñ suñ Basiru waxee ca mel baaxil xadim noppi gu andu xalaat lottu la sama bara bi waxoon ne la muñ dañ ko bind waxam liggéey mooy mooy liggéeyam mooy wax waaye ne kon mu wax li yàlla bëgg bu ko mënta wax mu noppi fa in takun muxallilan zil zil arba suñ bi ne soo soo niwelee ñeent yooyu mëtuloon léegi ndax yu maqaasida da nga da nga làq xemem te fi jubluwaaye sa projet yi nga bëgg yëpp dana dana dana sotti xukkul la man faa suñ fi suñ tubaab neen jamonoom dawul commentaire ci événement yi ci am moom daal li muy wax lépp mooy lu ñu jëriñoo du wax événement yi weesu woon du wax événement yi xew dara moom kay moom luy jëriñ bi defi donc donc ci lay wax loolu loolu loolu ab seet la bu bu am bu am solo la bu bu ma teroy la ndax xew xew yi xew fan yi rek maanaam ku ci nekk di ko waxtaane dana mujj jëw dong ci lay mujj doon dana da nga mujj sax far bég ca bég ca waaja wax loola ndax waaja far bëgg nga mu alku bëgg nga mu nangam loolu lépp fu for day daal doon ay ayib yow koy santal rek maanaa léegi santantal bala yàlla musulee ci ci bokkaale maanaam loo ca mën a waxit ngir ngir leeral ba ba ku ku dul yow xam ne lee bokkaale la ba ci dugg ndax waaje ginnaaw da nga da nga bañ mu alko te képp koo xamante ne da ci daa bokkaale ba ne génn na ci diine ji sofaat woon wari su jullit ñi waruñu koo jullee waru waruñu koo sóol ca seeni armeel waruñu ko donn warta donn kenn ci ci ci noonu kon kon loolu kon ay mbir la yu rëy yoo xamante ne képp koo xam ne da daa daw jëm ca te jëmmeerlu ko wa jullit ñi war nañoo ñëw jëmmeerlu ci kanam wax ko ne ko ah yaa ngi yaa ngi yaa ngi bëgg a sàggi ñag ba nag yaa ngi bëgg a jéggi ñag ba te ñag ba ko jéggi fekk fa ay jànklaar fekk fa ay ñanguur fekk fa ay ci nag mel te sëñ la ne woon na sëñ Tuubaa day waxoon na ne ñang na ñang na na yoon wi waaye nag képp ku ku jéggi ñag ñag bi nag su sëñ bi nag du jéggi ñag bi fekk la fekk la fa di dimbale sëñ Saaliw mu baax moo waxoon na ne diw sànga moo xam ne koo xam ne doomi doomi doomi sëñ Tuubaa di ko wax ne ko day daa bëgg mu dimbali ko mu ne ko sëñ bi day garanti nañ ñii doom yaag ñoom yar ak soxna ya ku dul ñoom nag soo góorgóorlu ñu dimbali la kon faggu ci fi ñoom faggu faggul nañ ko ñoom mu ne kon suñ tubaab nag daal di wax ne ma ngay wax ci ma ngay wax ci tontu la naan ci ma daray na abidan muntafia bi gayri haadihi ala ma sumia ne xamuñu bépp benn jaamukatu yàlla boo xam ne jariñu na ci jaamoom nga lu dul ci lu yii ma la wax fa duma ala sahari bil asgaari wa som ci bil layli ci finaar yi kon day maa ngi lay di digal nga sax ci foog guddi ci sikkar am tur yàlla yoo xam ne da nga koo jëlee ci ca yoon wa sëñ sëñ Tuubaa ba muy jël ba muy yeesal xaadiriya ca sëñ maam as Kamara te mooy doon xutbu xaadiriya jamono yu jooja nekkoon ndar sëñ bu junni dërëm la ko joxoon te ni 1912 rek ne ñu bëri góor dërëm la kon kon booba kon lalam ko joxoon ci alal kon bari na lool te kat ngir yeesalal ko rek wérdu xaajir yi nga xam ne ni moom la jëloon ci ci membre interprètes yi loolu rek rek rek mu barkeel loo ko ci ci moom kon nag nga ci nga jël tur tur tur yàlla caa xam ya saxoo moom nag def ko saw saw sal te wuy soo ko defee mën naa am sax jot dana ñëw lool wasumti fi layli ci fi naari noppi ci lu lu am njëriñ tey jamono ji rawatina ji maam fa sàmba ne woon na ma sëñ bi ne woon na leen ñoom ñoom waa barsàq yi yéen a ngi jëm jamono joo xam ne yéen dafay tax a mucc jekki noppi liggéey loo am doy loo ko jekki noppi liggéey loo am doy loo ko loolu ko loolu kon jamono ji kon daa mel ne kon aksi na dëgg kon bu kon oxay yi kaa ci man lil xasanaat